asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne yéen ngi ci xuraasul iraada yëpp ñoo ngi leen di nuyu waxoon nañu le leen waxtaanal ci istuwaaru cheikh abdul qadir jilaani ak fi nga xam ne moo di cosaanam ak fi mu jógee ba ñëw baxdaad ak ni mu fi def ba toog fii ba jàng fii lu mat juróom fukki at ba jàngale fi ba génn àddina ci juróom ñeen fukki at waaye tey dañuy waxtaan ak yéen ci ginnaaw Cheikh Abdul Qadir Jeylaani xew-xew yi nga xam ne moo fa xew lii nag ku dem ci siirul alaam an nubala di nga ko fa fekk waaye damay bàyyi sama benn mbokk historien boo xam ne arab la moom muy nettali ci arab man may wax ci wolof waaye rek li may wax yépp moom mu di ko nettali jàng naa ko ci la alam an nubala waaye nettali bii ma leen di jox ci Cheikh Abdul Qadir Jilaani daanaka day nekk nopp daloo ci Sénégal te it ak ci Afrique yu bëri ndax xam nga sénégalais yi ñoom histoire taxut ñu xóot ci noonu ndax dafa am askan wuñ ko féetale ba tax daanaka duñ ko jàng te histoire dañ ko war a jàng ndax histoire yonent yàlla noohin bu ko alxuraan nettaliwul woon kon duñ ko xam histoire mbindam maam Adama su ko alxuraan nettaliwul woon duñ ko xam histoire jaar jaar yi fi jaar yëpp ba ci yonent yàlla Muhammad la jiitu mu am mat ci xew-xewi diine alxuraan ñu ko nettali kon fax sa sil xasasa waskur fil kitaabi nettali histoire ak jaar-jaar yi jàlloon day tax nit ki mën a prévoir boppam ci li ci kanamam ba lenn lu ci nekk bala caa egg mu xam na mu cay eggee moo xam mu di soppe bu muy àndal moo xam mu di noon bu muy moytu euh, nit ki loo ko fonk-fonk ak lu mu màgg-màgg ak lu mu jege-jege yàlla am na yoo xam ne bu demee ba gisatuñu ko yow yaa ci war a taxawal sa bopp ci sa taxawaayu bopp dara bañ laa bett te lu ngeen ne musta am fii ci àddina rek am na tasawuf xeex giñ koy xeex du tey tasawuf xeex giñ koy xeex da dalewul ci Muhammad ibn Abdul tasawuf xeex giñ koy xeex dalewul sax ci Abdullahi ibnu Taymiya ibnul Jawsi ma nga xam ne moo daje woon ak Abdul Qadir Jilaani jamono ca Bagdaad ah, lañ leen di nettali histoire am ak histoire Abdou Khadir Jilani ginnaaw bi Abdou Khadir nii jógee ak ya ca xew ndax da ngeen di dégg ñu naan Abdou Khadir Jilani ba mu génnee àddina ay mbokki ndeyam dañoo ñëw ne dañ koy yóbbu ay mbokki baayam ñëw ne dañ koy yóbbu léegi niiw ba def ñaari niiw déedéet loolu amut ndax Abdou Khadir Jilani gëm jóge fara bàyyi bàjjanam te booba yaayam ak baayam faatu nañu te jilaan la mës a dëkk bu fekkoon te ni waa kër ndeyam ak waa kër baayam ñoo koy xëccoo te waa kër ndeyam ak waa kër baayam kii bokk ci Assane kii bokk ci Ousseynou ñu bokk fu ñu cosaanoo bokk fu ñu dëkk kon dañuy wax ne fañ fa mu dëkk lañ ko doon yóbbu waaye demewut noonu nit ñi nag eh, dañuy nettali loo xam ne eh, du am ab ëkk du am ab jenn waaye nag ba sëriñ Abdul Xaadir Jilaani ci boppam moom ginnaaw bi mu faatoo am na histoire bu mag bu ca xew loolu lañ leen bëgg a nettali السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخواني الكرام وصلنا إلى الحلقة الأخيرة من سلسلة الحديث عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى النهاردة هنتكلم عن بعض المواقف المهمة جدا التي وقعت بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى والتي لها تعلق كبير بالشيخ رحمه الله الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى توفي في سنة 561 من الهجرة waaw li ma doon jiital rek eh, moom la waa ji di wax ah, li mu wax rek te bokkul ci te te waxaguma ko woon mooy Cheikh Abdou Qadir Jalaani xamsu mi awa waahid wa sittin ci hijriya la génn àddina juróomi téeméer ak juróom benn fukki at ak benn ci gàddaay gi ci la génn àddina 90 سنة 90 سنة عمر مديد قضاها الشيخ عبد القادر الجيلاني في تعلم العلم الشرعي قعد 33 سنة متفرغ لطلب العلم وجلس لتعليم الناس وهو عنده 51 سنة وظل 40 سنة يعلم الناس الخير وي... mu ni عبد القادر الجيلاني دفن def na fanweeri at def na ñeen fukki at sax naam cim njàngale ak dundam nekk juróom ñeen fukki at muy dund gu gudd fanweeri at ak ñett cim njàng ñeen fukki at cim njàngale euh, ñu continue أنشر العلم بين المسلمين وما زال المسلمون ينتفعون بعلم هذا العالم الصالح والإمام الصالح رحمه الله تعالى وغفر الله له ونور الله قبره لما توفي الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى تولى التدريس في مدرسته أبناؤه خلي بالكم يا أخوانا إن الشيخ عبد القادر الجيلاني كان عنده 49 ولد وبنت Cheikh Abdul laa ni juróom-ñeent fukki atam yooyu yëpp def na ko ci njàngale waaye nag yàlla daf ko joxoon ay doom ndax amoon na ñeent fukki doom ak juróom-ñeent ñeent fukki doom yooyu ak juróom-ñeent nag ay góor am na ci ay jigéen am na ci waaye Cheikh Abdul Qadir jilani bi mu genné adina domam mo tok ca dara ja difa jàngale كان منهم 27 ولد ذكر والباقي بنات ومن ال 27 ولد دول كان منهم 11 عالم 11 عالم ñaar fukki doom ak juróom ñaar yi ñoo nekkoon góor li ci des jigen la ñaar fukki doom ak juróom-ñaari góor yooyu nga xam ne Abdul Xaadir Jilaani am na ko ci ñeent fukki doomam yi ak juróom-ñeent fukki doom yi ak benn moom ay boroomi xam-xam yu ñu nangu seen xam-xam lañu yu yoo xam ne ci góor yàlla yi mag yi lañu bokkoon te ci ci fugraas yi lañu bokkoon ممن ترجم لهم العلماء في طبقات أهل العلم وكان أكثرهم فقهاء الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى كان ابنه الأكبر اسمه عبد الوهاب وكان عالما كبيرا و... فكي دوما ميوي أكبر ييغا خامن بروم خام خام لا نيو سي نين ديمي سي استوار ني جانغالي بروم خام خامي دي نين فك سيني تور واي شيخ عبد القادر جيلاني doom ju mag ji nga xam ne moom moo toogoon di jàngale palaasam euh, ñu ngi koy wax Abdul Wahab fukki doomam yooyu ak benn yëpp nag ay fuqaha la ñu woon doon ay borom xam-xam waaye Abdul Wahab nag moo toogoon ci daara ji moo fa doon jàngale تتلمذ على يدي أبيه الشيخ عبد القادر الجيلاني وجلس للتدريس في مدرسة باب الأزج في حياة أبيه فلما توفي أبوه انتهت إليه رئاسة هذه المدرسة وفضل الحال على هذا الوضع عبد الوهاب مومو شيخ عبد القادر الجيلاني بايم موكو جانجل سين دارجي ميغي باب بابul nekkoon na fa di jàngale ci biir daara ja te booba baayam mi ngi dund bi Abdul Xaadir génne àddina nag booba la Abdul Wahab toog place baayam ci école boobu ñuy wax Babul Asaj yore njàngale ma na ko Cheikh Abdul Xaadir Jilaani yore woon واستمرت مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني كما هي على يدي أبنائه وتلامذته ولكن كان من الحاجات الغريبة اللي عملها أبناء الشيخ وتلامذة الشيخ لما توفي الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى إن هم دفنوا الشيخ في المدرسة دفنوا الشيخ في المدرسة لم يدفنوه في المقابر آه، الموضوع ده لإن جيوبنا بني سلي بملم mi ngi koy bëgg a wax ndax baabul asaji googu dañ ko ko joxoon mu nekk wax fu mu tabax fa daara ja di fa jàngale bi mu génnee àddina nag doomam yi dañoo dajaloo suul ko ci biir ëttëb daara ja suuli wuñ ko ca armeel ya waaye dañu ko suuli ca biir ëttëb daara ja عمل مشكلة بين آه، تلمذة الشيخ عبد القادر الجيلاني وبين بعض العلماء ممن كان في بغداد في هذا الزمان أنكر عليهم بعض العلماء إن هم إزاي يدفنوا الشيخ عبد القادر الجيلاني في المدرسة وكان من أشد العلماء إنكارا لهذا الأمر ابن يونس أبو المظفر الأزجي وابن ñi nga xam ne ñoom آه، ba loola amee boroom xam-xam yépp dañoo d'accordul woon ci loolu am na ñu ca d'accordul woon ca la doomam ya def waaye nag ku ñu wax ibnu yunus al asji moom te ñu gënoon a bañ ne loolu di su ko def waruleen ko suul foofu da ngeen koo rasuuli ci armelia ibnu yunus al asji moom ca la bokk يونس كان عالما حنبليا وكان فقيها وأصوليا وكان من منطقة باب الأزج اللي فيها مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ابن يونس كان عالما في الفقه والأصول وكان عالما بالحساب و ابن يونس برم خم خم لون نكت مذهب إمام أحمد ابن أنبل دكون في ميم كارتي بنغا خمني foofu la madrasatu babul asaj ne te moo di madrasa bi Abdul Qadir Jilaani doon jàngale boroom xam-xam la woon nag ci fiq boroom xam-xam la woon ci naxwu boroom xam-xam la woon ci taarix boroom xam-xam la woon ci ay xeeti xam-xam yu bari moom ibnu yunus al asaj moomu الجبر والفلك وغيرها من العلوم التجريبية وكان لي شأن كبير في هذه العلوم لما مات الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ودفن في مدرسة باب الأزج أعلن ابن يونس إنكاره هذا الأمر وأعلن أن المكان ده لم يوقفه المسلمون ليكون مقبرة ولكن من أوقفوا هذه الأرض أوقفوها لتكون مدرسة لتعليم العلم المهم ibnu yulus nekkoon na boroom xam-xamam jabru mooy li ñuy wax nekkoon na itam boroom xam-xamam ilmu nujum waaye ibnu yulus ba ñu suulee foofa cheikh abdul qadir jilaani dafa def wa wax ne suuf si kat dañ koo joxe woon jox ko abdul qadir jilaani ngir mu tabax fi daara waaye bañ koy jox suuf si joxuñu ko ko woon pour mu ñu di ko fa suul mu nekk ay armel dañ ko waroon a suuli ca armeel ya waaye kenn waru suul ci biir baabul asaj gi nga xam ne dañ ko tabaxoon ngir mu nekk daara على صوت ابن يونس بالإنكار على أبناء الشيخ وده خلى فيه نوع من العداوة الشديدة بين ابن يونس وبين أبناء الشيخ وتلامذة الشيخ المهم مرت الأيام في سنة 583 من الهجرة الخليفة الناصر لدين الله استوزر ابن يونس يعني اختار ابن يونس انه يكون الوزير طبعا اول ما تولى ابن يونس الوزارة بدأ على طول يترجم عداوته لأبناء الشيخ عبد القادر الجياني وتلامذة ah ñu dem nag lu tolloog fanweeri at ak juróom yàlla def annaasiru lu diinillaahi toog doon buur ca Bagdaad jël ibnu yunus def ko mu nekk premier ministre waaye bi mu nekkee premier ministre moom ibnu yunus ñeel buur bu ñuy wax annaasiru diinillaahi li mu njëkk def mooy dafa continuer noono ga mu noono woon waa kër Cheikh Abdul Qadir Jilaani nga bañ a fàtte nag ne ibnu Yunus boroom xam-xam la ab hanbaliya la euh, waaye euh, dafa contre tasawuf yàlla def nag mu dem ba ñu fal ko mu nekk premier ministre te fekk na booba mu ngi nekk alimul allaama ci réew ma euh, mel ni daal ñi nekk fii ci réew mi tey di woote ak salafiste ak woote ak waa abis seen njiit toogoon ba am buur bu falu ku mel ni Ousmane Sonko wala keneen daal di koy fal premier ministre léegi nag noonu la demee foofa ca Iraq mu daal di jël na kàttan ak nguur googu mu am ne nag léegi dina ko faje meram mi meroon ci Cheikh Abdul Qadir Jilaani ak i doomam أنزل الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى خطوات عملية فكان من الأشياء اللي عملها إن هو أغلق مدرسة باب الأزاج اللي هي مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني مش بس كده ده بدأ كمان يشرد أبنائه شرد أبنائه في الأرض وكثير منهم خاف منه فخرج هرب من بغداد خوفا من بطش هذا آه، الوزير مش بس كده ده بعض العلماء ذكروا أن ابن يونس عمل شيء شنيع جدا وهو أنه نبش قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني واخرج رفاته والقاه في النهر تخيل الغل والكره قد ايه ابن يونس بامو نك بريمير مينيستر دا فا كونتيني نونو غامو نونو ون عبد القادر الجيلاني اك دومم اك خيخ غامو دان خيخ سفيان كي لامو نيك ديف موي dafa tëj madrasatu babul asaj bi nga xam Cheikh Abdul Qadir Jilaani ko tabaxoon ci Baxdaad daal di tàmbali jàpp doomam yi di tëj gaa yi daw tasaaroo yenn seen një fu nekk waay yenn fa njëam ñi jëm Égypte ñi jëm feneen rawale ji seen bopp ngir mucc ci ibnu Yunus ako ayam ibnu Yunus ia ci loolu ba mu tëjee école ba tas ko gaaya tasaaroo dem dafa dem sulli bàmmeelab Cheikh Abdul Qadir Jilaani ba nga xam ne suul nañ ko lu bëgg dem ci euh, ay ñeent fukki at ak nangam Yaxya mu jël ko dem sànni ji ko cëb teg ko ci gaal looco dem tuuri ko ca biir ndex ga ايه الذي كان عند هذا الرجل وخرب المدرسة واوقف التدريس فيها طبعا ده كان آه، مصيبة كبيرة جدا لابناء الشيخ وتلامذة الشيخ والعلماء اللي بيحبوا وبيقدروا الامام عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ولكن آه، يعني رب تبارك وتعالى بالمرصاد الوزير ابن يونس ما قعدش في الوزارة غير سنة واحدة السنة اللي بعديها على طول سنة 584 آه، كان في حرب بين الخليفة العباس العباسي وبين الدولة السلجوقية وكان آخر ملوك الدولة السلجوقية واحد اسمه طغرل ابن أرسلان هو آخر ملك من ملوك السلاجقة وحصلت مجموعة من الحروب بينه وبين الخليفة العباسي فأرسل الخليفة ابن يونس على رأس جيش ليقاتل طغرل ابن أرسلان لكنك بمدفع لولا بسلي bàmmeelam Cheikh Abdul Qadir Jilaani jël yax yi dem def ko ci gaal tuuri ko ci biir dex ga at rek lañu toog salaajixa yi nga xam ne ñoo nekkoon foofu ci côté iraan buur bu ñuy wax tuxurul ibnu arsalaan am problème moom ak annasirul diinillah léegi ñu war a def ab guerre guerre boobee nag naasirul diinillaahi yebal ibnu yunus mu nekk général ba war a dem ca guerre ba bañ dajee ak tuxurul ibnu arsalan te kooku ci maami ci yi la ndax booba saljuxi yu ne ñoo doon atte boobu jamono ca côté booba tuxurul ibnu arsalan gañe leen jàpp ibnu yunus ab jaam ndax xare ba ibnu yunus nekk ci njaam ca loxoy tuxurul ibnu arsalaan الآن في منطقة همدان وقعت حرب بين الطرفين انهزم فيها ابن يونس وفر الجيش اللي معاه وهو نفسه اتاخد أسير قعد في الأسر شوية وبعدين سابوه رجع بغداد مرة تانية ولكن كان الخليفة طبعا استوزر وزيرا غيره ولكن في الحقيقة هو آه، يعني لم يهمله بالكلية ولكن جعله على الخزائن وعلى الديوان وده يعتبر منصب رفيع أيضا في الخلاف Ah, ñu dem ay jamono tuxurul ibnu arsalaan daa di daa di bàyyi di bàyyi ibnu yunus ne ko demal ndax kilifa nga te ñun ñaar ñëpp ay jullit lañu te jullit du jàpp morom ji njaam ba tuxurul ibnu arsalaan bàyyee jigi bàyyee foofa rek ca xamadaan mu dellusiwaat nag baxdaad bi mu ñëwee nag fekk na ah naasirul diini laa yi changé na ko ba def beneen premier ministre waaye nag bàyyiwu ko déedéet da ko def mu nekk ministre de finance lépp lu jëm ci wàllu alal mu jox ko ko mu yore ko waaye premier ministre gi moom jëlee na ko ca ولكنه أقل من منصب الوزير فضل على الوضع دوت من سنة 584 آه، لحد سنة 589 تولى الوزارة واحد اسمه ابن القصاب احفظ اسمه كويس ابن القصاب ابن القصاب دوت كان بينه وبين ابن يونس عداوة كبيرة جدا أول ما تولى ابن القصاب الوزارة على طول بدأ ينكر كلبي ابن يونس فيما يعرف بنكبة ابن يونس وخدوا رمات السجن وأذلوا إذلال كبير ويعني أهانه إهانات كبيرة جدا وظل ابن يونس في السجن حتى مات فقال الناس هذا بذنب الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى طيب بعد ما حصل كده آه، ابن القصاب الوزير ده آه، بدا لانه ليه عداوه كبيره جدا مع ابن يونس فبدا يعمل نقيض ما كان يفعله ابن يونس فعمل ايه بدا يرجع ابناء الشيخ عبد القادر الجيلاني مره ثانيه الى بغداد وفتح المدرسه مره ثانيه وعمل آه، صيانات للمدرسه التخريب اللي حصل فيها اعاده مره ثانيه واعاد بناء قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني في المدرسه وقرب ابناء الشيخ وتلامذه الشيخ وكان لهم حظ عضوة كبيرة عند الوزير ابن القصاب لحد هنا الأمور ماشية كويس جدا ولكن واي جس جيالا دينا ننكو وايدو ساقن ابنون با ابن يونس نيوي كني وقت ابن القصاب موم لا ناصر الدين لا يدف مو نيك بريمير مينيستر دون بومي با يور jël ibnu yunus daal koy def ministre bi yore wàllu finance ibnul xattaab itam dafa nekkoon ku noono ibnu yunus ñaareel ba itam am lu ko naqari lool ci li tax mu tëj daaray abdul qadir jilaani tasaare ay doomam sulli yax ya dem këppi ko ca biir dex ga mu daal di tàmbali nag di def contraire bi fexe na daal ba ibnu xasaab am détournement bu mu def ah ñu atte ko ibnu yunus eh, am détournement bu mu def ñu atte ko ibnul xasaab joxe ndigal ñu daaj ko ci kaso bi foofa la nekk mom ibnu yunus ca kaso ba ba moo tax waa baxdaad daan wax naan ibnul xasaab moo fayul abdul qadir jalaani ci ibnu yunus bàkkaar bi ibnu yunus def abdul qadir jilaani te tooñ ko loola moom la ko yàlla faye ibnul xasaab mu tëj ko ca kaso ba ba mu dee moom ibnu yunus mu dellu woote dajalewaat njaboot ak cheikh abdul qadir jilaani ñu ubbiwaat daara ja mu tabaxaat armel ba fa mu nekkoon waaye fekk booba moom ibnu yunus sulli woon na ko ba jël rufaat ya mooy moñax tiiti yaxya ba dem sànni ko ca biir jax ga muy niir naaru furaat ca la ko sànni ah, ci gaal la ko def sànni ko ca àll ca ah, ko ca biir àll ba ca biir ndox ma boo gisee ñu nettali leen histoire bi mënoon nañ ci xóot wax ci sax leneen lu gën a bari ndax waa ji day ah, day résumé te li muy wax lépp mu ngi ci siyarul alam annubala boo fa demee da ko fay fekk waaye ñun li ñu jublu ci nettali gi mooy noonoo gi ñu noonoo àllu suufa du ren du da daaw du déen du daaw du daaw jéeg moo jiitu sax kii ñuy wax Muhammad ibn Abdul Wahab moo jiitu ki ñuy wax Abdullahi ibnu Timiya xëy na ibnu yunus boroom xam-xam bi ko njëkk a def contre tasawuf su li wax yi sidi abdul qadir jilaani sànni ko ca dex ga dañ ko tëj ca kaso Bagdaad ba ba ca la dee ibnu abdullah ibnu taymiya tamit dañ ko tëj ca kaso dimask ba ba fa la dee ab muhammad abdullah abdal moo ci arrivé ànd ak buur bu bëggoon nguur Angleterre jàppale ko ba contre sa tasawuf gi continé waaye ka ko njëkk a woote muy ibnu ibnu Yunus moom ba sulli bàmmeelab Cheikh Abdul Qadir Jilaani dañ ko tëj ci kaso ba mu dee ibnu Taymiya it dañ ko tëj ci kaso ba fa la génne àddina li ma nettali nii li ma ci jublu mooy ñi nekk ci tasawuf xamal seen bopp ne xeex bi ñuy xeex tasawuf du léegi la tàmbali te xeex boobu ñuy xeex tasawuf du léegi lay jeex ñi nga xam ne dañuy xeex tasawuf xëlu lañu daañu gëmm waaye duñu fay bis boo xamee ne ngelaw dikk na rek boo ci tegee mbopp dañuy fiiwaat tàkk doon ak daay noonu histoire di doxee nag ca yàgg noonu la histoire di doxe ba léegi la ko dale ca Jalaluddin Abdoulaye Turki ak ña ko jiitoon muy Saoud ba ba ngay ñëw tey ci Malik Salman mboolem buur yi fi nekkoon dañoo tegoon loxo wa abi yi ñuy lëmbe ku wax ñu ne la mushrik nga kaafir nga bidaa yi nga xubur yi nga lu nekk ñu di ko def léegi nag Mohammed Ben Salman mii moom bu fekkee am na ay sikkit am na foo xam ne am na fa eh, njëriñ ndax Mohammed Ben Salman moom bi mu ñëwee moom moo daal di wax nag ne ak waa abiye moom dafiy jeex lakkal ngeen nit ñi tax ngeen àddina yëpp noonoo nañu ak Arabie Saoudite te yéen a tax ndax yéen lañ jox àtteb diine ngeen yéefarloo waa àddina yépp yar ay gone jox leen ni gànnaay ñu dugg ci àddina bi xeex di rey jullit ñi ngeen gëmloo leen ne jullit yi ay yéefar lañu loolu moom Mohammed Ben Salman boo ko seetloo foofu eh, inna laa yu aydu asadin dojil fajiri moo fi moo moo moo fi dox xañ na leen pouvoir ci Arabie Saoudite tëj na leen ñoom borom xam-xam yu mag ya ni ibnul xassab tëje woon ibnu yunus ca jamono abdul qadir jilaani yi gaa yi léegi seen robinet yi tëj na seen ndey ji leen doon teg loxo itam mi ngi ci kaso moo ki li ëpp ci borom xam-xame arabi saudi yi nga xam ne waa abi yankele ñu ci kaso bi léegi kon dana jaadu képp ku ci yor mbooloo ak foo mën a nekk ci àddina bi nga xaw a teg gi sa tànk tuuti xaw a maslaa tuuti boo nekkee Baghdad nga ne Abdul Qadir Jilaani kii ci sunna la nekkoon imam Rifaa'i ci sunna la nekkoon boo nekkee Sénégal nga ne ah maam Sëñ Bamba kat ci sunna la nekkoon ni teg sunna la woon maa laaji Malick noonu ndax lan ndax dañ dañoo war a ralentir nag accélérateur bi wàññi vitesse bi tuuti ndax lan ndax fi essence bi doon jógee carburant bi dañ koo tëj te foofu mooy Arabie Saoudite addina nag noonu lay demee noonu la àddina mas di doxee nattu bi daloon Abdul Qadir Jeylaani ak i noonam ak doomam ci noonam ba ibnu Yunus teg ko ko ba sulli sulli ba ba sànni ji yax ya ibnul Xassab ba mu dikkee da koo faj xëy na nattu bi dal jullit ñi ci waa abiyanke yi nga xam ne ñoom ñooy taalibi ibnu Yunus yooya ah, ndax ñooy dox doxinam xëy na yàlla dafa bëgg a jeexal nag seen dangar damm seen i ndax nit ñi am jàmm moo tax fa seen njiit ya nekkoon ca Saoudia gaa yi jiyoog ñoom jàpp leen dàcc kaso bi yan yàlla teg na ci jub teg na ci sellal li may wax nii nag lu gàtt la ci histoire bi waaye ko dem siirul alaam an nubala dafa rëy nag téere la boo xam ne na fanweeri téere xam naa ne moom euh, fanweeri junneeg nangam jënd ko ci xaalis waaye ku ci am siirul alaam an nubala euh, da nga ca fekk histoire bi may wax nii dama ko def nag pour fàttali képp kuy sufiyanke xamal leen ne naagu moom ku ko def danga mas a am mbett te ñi nga xam ne dañoo contre tasawuf bis bu ñu doxee ba am kàttan ci nguur yéen sufiyanke yi dégg ngeen loolu mbébu ngeen sóoraaliko ñi nga xam ne dañoo contre tasawuf muy Sénégal muy feneen fu ñu doxee ba am baat ci nguurug réew rek ah waa réew ma bu yeboo ñu xam ne am nañ problème kenn ku ne na xool sa tànk fi nga koy joggi bala nga koo jóg ci ak ndëgg sërëx asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu